est-ce que du diversion lañ bëgg a créer Pape Alé Niang de waxoon na ko yàggul dara nee woon na MC Niass mi ngi nii ñu convoqué ko ca bureau doyen des juges mu génnee audio yam seqoon ak aji Sarr waaye amul benn journaux bu ci wax amul benn télévision ak génn site internet yoo xam ne daal ci ciy addu ñu ci ëpp ñi nga xam ne ñoo toppoon di ngawti ngawtee dossier Sonko ak Adji Sarr bi ñoom ñëpp dañ ne cell toog noppi waaye nag bu mu leen bett fii ak semaine bii di ñëw bu ngeen déggee ñu naan rebondissement sur l' affaire Sonko Adji Sarr am na lu ñëw démentir ojo yi nga xam ne MC jox na ko ki nga xam ne moo di doyen de juges lépp loo ngeen ci dégg rek xam leen ne waru leen bett ndax nekk nañ ay journaliste yu ci bëri ñoo xam ne ils sont corrompus waaye itam am ci loo xam ne ñëpp xam nañ ne complot la bu ñu sukkandikoo ci Pape Alé Niang buy am kon lépp lu ci am rek ñoom dinañ def de telle sorte que ba nga xam ni mbir mu dugg mën koo éliminer loole mooy li am ndax Adji Sarr nee na audio yi MC Niass jox Maham Diallo dëgg la ne baatam moom moo ci nekk te moom moo ko def waaye da koo defoon tout simplement ngir daal di dugal ki nga xam ni moo di MC ngir xool ndax moom ku fiable la ou pas ndax c'est une personne digne de confiance maanaam dafa teg dil ki nga xam ne moo di MC ngir moom mu daal di balancer yooyu la ojo ngir mu wane ne moom nekkul koo xam ne ku ñu war a wóolu la nekkul koo xam ni ku ñu war a confier ay secret la ba tax na nee na liste ba ñuy dégg naan ay nit yu ñu lim la ne moom moo ñeel aji saar ak ña nga koo xam ne ci ñoom ñooñu le nekk na ak moom wala mu mës laa teg bët wala mu mës ak yow dara lu ni mel nag nekk lu doy waar dans quel pays sommes-nous dañoo nekk ci réew moo xam ne léegi ku mu neex wax sa lu la neex jëlee ko nu mu la neexee utiliser ko fu mu la neexee soo paree ne lii maa ko jëloon exprès pour daal di am koo xam ni dama la doon utiliser mel ni nag kon xelum sénégalais yi la fowee di caaxaanee suñu ab justice waaye itam am yabeel gu toll nii saa su ne ñuy def ay mbiri maa tey yoo xam ne day am ci Sénégal te kenn sañu cee wax rapport Cour des ta ngi nii kenn adduwu ci ñu ñëw génnee tey lu jëm ci Adji Sarr ak Ousmane Sonko di wane ne ojo yi MC Niass daal di joxe nekkul loo xam ne dëgg la nañu jublu ci l'essentiel l'essentiel mooy lan def nañ ko suñu jàngat bi ñu weesu moom ngeen di gis lien bi noonu ci kaw ci li nga xam ne procureur de la république war na ko daal di def rapport bu cour des comptes loolu moo ëppal njëriñ sénégalais yi loolu la sénégalais yi di xaar ñu indi ci ay tontu mais on n'a pas besoin de Adji Sarr qui vient contredire MC Niass par rapport ak ay ojo yoo xam ne moom dëggal na ne ab baatam la moom la woon Sénégal gii nag war nañ cee jug am na loo xam ne nag bu ëppee dafay tuuru Pape assan Seck démb mi ngi koy wax nee na sénégalais yi dañoo ñeme setaan lool dañoo bëri lu ñuy toog di bàyyi muy jàll ëllëg muy jur ay jafe-jafe ci réew mi xool leen dossier Sonko ak Adji Sarr gaa ñu sukkandikoo ci justice mën naa dem ba cinq ans waaye dossier boo xam ni daa yëngal am réew am fukki nit ak ñeent ñu si ñàkk seen bakken am ci yeneen dommages collatéraux yu ci am comme Pape Alé Niang li ko dal nii nga xam bee ko ñeel ak itam Fulbert Sambou Didier Badji mi disparaître loolu yëpp nekk loo xam ne war naa mën a tax bi le dossier ñu gaaw rek la ko évacuer ko Sitor Ndour bosam a ngi nii romb na Kalifone Sall romb na doomu Cheikh Yérim Seck ba bosom traîner wul kon ana lan moo waral ñuy a Sarr boobu ba tey kon nag li nga xam ne Ousmane Sonko mi nga koy wax ne lii dafa bay enjeu politique mi ngi bëgg feeñ te mi ngi bëgg nekk dëgg lu ci mënti am mooy nañ convoqué ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu tudd ci rapport bu Cour des comptes les Sénégalais en ont besoin les Sénégalais ont besoin de savoir la vérité par rapport à la chose bëgg nañ xam lan moo xewoon exactement ci jamonoy Covid 19 bi xaalis biñ ci génnee fonds force Covid 19 yi fan lañ ko dugal ak ku ci nekk rapport ba fam la épinglé ñëw leeral ko Sénégalais yi loolu lañ gën a soxla alal ñu jël ko pasar pasaree ko jamono joo xam ni ñun sénégalais yi ñu ngi doon nërmeelu suñu ay biir nekk di tëju ñoo génn ndax am ragal boo xam ne instauré woon nañ ko ci suñu xel yi ba pare itam napp ñu ba kenn sañu ta wax kenn sañu ta yëngu fekk ne boobu yee yaay ñoom ñi ngi jël alalu réew mi di ko caxat-caxatee di ko pasar pasaree di ko paccoo dugal seen ay compte di ko retiré nu mu leen neexee nekk seen bànneex ak seen noflaay yaakaar ne rëcc nañ duñ mës a rendre compte ne dénk nañ la mbir moo bokk na koy sàmm te koy téye téyin bu sell téye ko téyin boo xam ne ëllëg di ko mën a rendre compte sans pour autant nga am benn justification bu doy boo ciy indi wala ngay am loo xam ne foo romb nit ñi dinañ la ko joxoñee ngay am gàcce national loolu nag la ñu war a éviter ci suñu am réew bari na fi ñoo xam ne mën nañu ne bu doon am nañ jom am fullaak fayda am ngorax lu ñuy jombale seen bopp duñ tegati sax seen tànk Sénégal dañuy jël avion génn réew mi ndax bari na ay scandale yoo xam ne tudd nañ leen ci te ñëpp nag dañoo nekkee ci régime bi nga xam ne mooy régime président Macky Sall moom ci boppam ñi ngi woo à ce nga xam ne ñëpp tudd nañ leen ci rapport bu cour des comptes boobu mu daal di digal procureur de la république mu def ab liggéeyam c'est ce dont nous avons besoin plutôt que de servir les propos de Adji dans le bureau du doyen des juges li ñu yitteel actuellement nii mooy loolu nañ ko régler ndax dossier Sonko Adji Sarr bi sonn nañ ci yàgg na lool kenn réglé wu ko kon nañ ko a lijjanti na njëriñ sénégalais tàyyi nañ xamuñ fan la ñuy jee seen ay métit ndax saa ne régime bi nga xam ne moo fi nekk en place di am ay métit yu muy teg sénégalais yi te sénégalais yi duñ ci mën lenn duñu am benn solution buñ ci mën a apporter au contraire président de la république Macky moom mi ci war di wax war nekk ki nga xam ne moom la ñuy woowee le père de la nation tey jii dafa setaan ay doomam tey jii dafa setaan ñi nga xam ne moom moo leen jiite ndax tey bu fekkente ne sénégalais yëpp ñi ngi amandoo leen métti jëmale ko ci seen am réew moo war a génn di waxtaan ak nit ñi di dalal xel yi saa su ne ay rapport yu scandale la ñuy dégg saa su ne IGE génne kenn xamul IGF waxi noppi rapport cour des comptes kenn waxaale wu ko te loolu yëpp amul benn kaddu boo xam ne président de la république mi ngi ko ciy yëkkati di ko jagleel sénégalais yi pour au moins daal di dalal seen xel amul benn kaddu boo xam ne président de la république mi ngi koy yëkkati ñeel violence bi ñuy gis ci biir assemblée nationale amul benn kaddu boo xam ne président de la république Macky Sall mi ngi koy yëkkati jëmale ko ci li nga xam ne moom moo ñeel wàllum insécurité bi nekk ci réew mi waaye itam disparition yu bëri yi ñu fiy gis Fulbert Sambou Didier Badji ba tey communiqué guñ ci nekk loo xam ne nag war nañ cee wax suñu Sénégal gii ñun ñoo tànn Macky Sall le président de la République fal ko ci atum 2012 nekk yow lañ bëgg nga nekk suñu père de la nation suñu gardien de la constitution constitution bi nag li mu ci wax mooy képp koo xam ni yow da nga di doomu Sénégal am nga droit à la protection képp koo xam ni danga di doomu Sénégal am nga droit sàmmonte ak lépp loo xam ne ay charte réew mi te waroo ko jéggaani bés boo ko jéggee yow yow dina am ay daan yu dal sa kaw cour des comptes bokk ci corps de contrôle yi nekk ci réew mi yoo xam ni saa ne dañuy càmbar lépp li nga xam ni waa administration dañ koy liggéey gouvernement beex ñëpp pour xool lan moo ci nekk lu baax ak lan moo ci nekk lu bon ñu mën a jël lu bon li def ci ay recommandations teg waaye nag ñoom mënuñoo jàppalu kenn ñoom mënuñoo tëj kenn prison ki ko mën mooy le procureur de la république moom mi nga xam ne mooy gis ab a def ma mbir mu ni mel ndax maay procureur bu Sénégal bés bu ngeen defee li nga xam ni moom mooy indi ay justification ci mbir mi ngeen ñibbi seen i kër bu ngeen ko deful nag vous allez rendre compte à la nation vous serez mis en prison bu fekkente ne da ngeen def naka sudul noonu loolu la xaar ci le procureur de la République du Sénégal loolu la ñuy te bu ñu sañoon tey jii loolu mooy am ci réew mi plutôt que nag ñu ñuy servir mbirum Adji Sarr tout a convoquer kenn procureur de la république mi ñuy tudd léegi mu di Serigne Bassirou Gueye loolu yëpp defuñu ko ba pare bëgguñoo sonal ak lu jëm ci wàllu Adji Sarr nee na MC Niass li mu wax du dëgg c'est pas authentique on n'en a pas besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est de savoir si notre Sénégal est un pays intègre, si nootre Sénégal est un pays de démocratie, si notre Sénégal est un pays composé d'hommes forts qui respecte la République, qui respecte la Constitution, mais aussi qui font en sorte que chaque Sénégalais puisse bénéficier l'argent du contribuable, mais de manière équitable. Ana lan moo fi jar tey di jël alalu réew mi di ko dugal ci ay mbir yoo xam ne ñëpp xam nañ ne du dëgg du yoon te ñëpp taxaw di setaan ci mbir mii buñ ko deful ëllëg dinañ am ay regret yu bëree bëri yoo xam ni nañ ko daal di am ci suñu am réew te bu booba ñun kese ñooy nekk ñi nga xam ni ñooy nekk les fautifs bu ko defee nag am na lu ñuy waajal ci atum 2024 mooy élection présidentielle ñun nag ñoo amoon confiance ci président Macky Sall ci atum 2012 daal di koy fal mu nekk le président de la République du Sénégal jamono jooju Sénégal jaaxle woon na tiitoon nañ jommi woon nañ ci ay scandale yu rëy a rëy yoo xam ni waa kër Abdoulaye Wade ñi ko doon def jamono ji nga xam ni moo nekk président la république ñëpp tiit ñëpp jaaxle ku nekk naan lii faw mu jeex lii faw ñu daal ko fiy dindi ñu def le tout ba xeex président Abdoulaye Wade ci diggante ba daal ko fiy jëlee am confiance ci président Macky Sall fal dañoo bëgg alternance daal am ci Sénégal mu ñëw ne li may njëkk a xeex mooy lu jëm ci wàllum corruption mooy lu jëm ci wàllum transhumance ñu gis ne Macky Sall créé na lu jëm ci wàllum CREI cour de répression de l'enrichissement illicite ñu yaakaar ne liggéey ko tax a jóg nekkite yoo moom ay adversaire politique la doon waaj a éliminer ñu dema dema dem bay gis transhumance gi bëri lool ñuy gis luubal gi bëri lool ay nit ñu dégg ci faux billets justice boo xam ne dañ koo noot loolu yëpp nekk ay mbir yoo xam ni Sénégalais yi dañoo dem ba marche ci xamatuñ fu ñuy teg seen tànk waral ñu am benn déception boo xam ne dañ ko jëlee ci le président Macky Sall bëgg ko fee jëlee nag atum 2024 moom ci boppam sax mënul bokk ndax moo waxoon nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs au Sénégal loolu moo ko waxoon kon na ko respecté na ko dëggal bu ko defee mu dem ci jàmm ak salaam sénégalais yi daal di jël réew mi teg ko ci loxo yu wóor ak kum ci mënti doon da nekk koo xam ne dina yërëm sénégalais yi dina respecté sénégalais yi dina leen jox seen cër waaye itam fonk suñu ab constitution respecté ko di ko doxal ca na mu waree buñ ko defee rek ëllëg suñu Sénégal mën nañ am nof noflaay gi nga xam ne moom la ñuy séntu te fañ war a yegg dinañ fa yegg ëllëg nañu gëm suñu bopp te xam ne c'est bien possible pour que suñu Sénégal mel ni Qatar ni mu mel il suffit tout simplement ñu def ci li ci war fulla ak fayda bi ñu jiital ko am lu ñuy jombale suñu bopp waaye itam alalu Sénégal dugal ko Sénégal ngir sénégalais bu ci nekk daal di ciy gis sa bopp AGT News